maam Khady Mbacké ak euh, kilifa yi nga xam ne yëpp ñoo nekk fii tey ci liggéey bu am solo nga ñi nga koy def ci dëkk bi an ma di leen dalal jàmm ci turu collectivité locale bi ministre bi ci turu bureau municipal en tant que maire en tant que fondateur de la société membre bi nga xam ci ñu créé bi ci bokk muy xale yu nit ñu nangoo liggéey ay opérateurs économiques yoo xam ne jàmbaar lañu monsieur le ministre lii ma doon wax rek président de la république lu ne fàng jarul ko wane jarul wan ko ami bët ndax li ma leen doon wax mooy soxla si ne dox leen rek lu yàgg garab guy màgg dëgg garab guy màgg la dana dox ba nit ñëpp seen ko yaakaar naa ne bu ñu ne gerte tey ci Sénégal ne production bi nga xam ne moom la réew mi produire ban taxaway la ci Touba am ban parti la ci Touba am ci commercial bi ya naa ne buñ ne salum pré bassin de rachid la waye man nañ ne Touba marché moy marché national bi nga xamné fi la ñuy produire gerte gi fi la ñuy produire diw gi def na ne tay li ngeen gis firndel nako kon nak ñi ngi lay dalal jamm di la wax ne fi mom ñaar rek lañ am mooy transport ak commerce amuñu géej ñu ngi petite et moyenne entreprise yi ñu ngi fi gis nga ko ak 92 unités yoo xam ne ni euh, société bi créé na ko teg fi ay nit teg ay emploi depuis mois de novembre ba nëg ni ñu ngi liggéey ci gerte gi defe naa ne loolu développement économique mënu ko weesu yaakaar naa ne bu fekkee ne amul benn benn benn secteur ci Sénégal ci économique ak emploi bu man arachide bu man gerte amul bu gerte amul ci Sénégal Sénégal mooy gerte mooy première matière ci réewum Sénégal mooy matière bi nga xam ne moom rek moo mën a yor réew mi huit huit mois à dix mois yoo xam ne mën naa jël presque un million cinq cent deux millions de emplois ñuy dox te loolu defe naa ne ñii fi nekk tey xam nañ ko ndax defe naa ne novembre lañ taal machine yi ñoom ñëpp ñu ngi fi mois de novembre lañ taal machine yi ba tey ñi ngi à le 10 août ñu ngi fonctionné gis nga stock yi nga xam ne ko fournir na ko industriels yi ñu ngi ci di liggéey. kon nag monsieur le ministre ñu di la xamal ne nga wax président de la république mais nga xam ci réew mi ne Touba am na am na ci gerte cër boo xam ne ba jar na bàyyi xel opérateurs yi aussi ñi nga xam ne ay industriels lañ. nañu leen bàyyi xel ci quota yi nga xam ne dañ koy distribuer ci gerte gi mais gën leen a lëkkale ak senacos ba ñu mën a liggéey liggéey boo xam ne bu am solo la ndax li lépp c'est national li gën a neex ci liggéey bi lépp c'est national parce que bu fekkee ne dañoo def ak partenariat ak senacos gerte gi ñu bàyyee ko ci réew mi Sonacos di chuchétu réew mi waa réew mi di di di di Sonacos di jënd gerte gi di ko jox petite et moyenne entreprise yi ñu di ko euh, produire di ko ko joxaat mu di ko raffinale di ko def à marché international def naa ne loolu mooy ressource économique kon lu am solo la ci réew mi en tant que Abdou Lahad Ka opérateur économique nag mooy wax ci loolu gannaaw bu leen dalee ci turu maire kon nag ñu jàppale ñi nga xam ne ñoom la ci remercier bu baax a baax soxna Maam Khady